ndax ñaari at du ñaari fan xëy na bëri na ñu fi tooñ mais xëy na bëri na ñu fi tooñ tamit kon ñu ngi leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla bu ñuy dajawaat bu nekk dajawaat bu gën ci ñun ñëpp di wax ne projet de loi bi président de la république indi fii dinañ ko supprimer te dinañ ko voter comme ni ko honorable député Cheikh Aliou Bey waxee rek nag bu jëm si raas moom ay mbokkam li ñu war a def bu ñu xamee tuuti ci àdduna mooy jooy kon teel caa rafet moo gën kon jàpp naa ne li gën te Sénégal yëpp jàpp ko te ñun waa yeewi ak wàllu campagne woon ko ba ñëw assemblée nationale mooy lii baaxul te mosuñoo wat seen bit si kon jàpp naa ne bu ñu ko supprimer ba pare xaalis boobu fan la war a dugg moo war a nekk débat bi mais dindi gi moom xalaa ku yàlla dina am kon jàpp naa ne loolu nekkatul débat mooy wax ne département Mbacké comme ni ko honorable député Abdou Mbacké Ndaw waxee léegi mooy département bi gën a peuplé ci Sénégal te koy wax Touba moo tax kon jàpp naa ne bu ñu ko supprimer Touba comme ni ko suñu mbokk di prix yëpp waxe ne fee fee mais Touba jàpp naa ne war nañ ko ci euh, wax jox wàll wu rëy rëy comme ni ko président de la république Bassirou Diomaye waxee ci conseil des ministres bii jàll mun leen def programme spécial pour Touba ndax Touba parce que yaram yaramu mag la foo laal day metti te kenn teguñu ko kudurisme bi fi jóge kon jàpp naa ne institut bi Touba dund son excellence président Bassirou Diomaye dina ko réparer te mi ngi ci te ñu ngi ko xaar bu baax a modernisation de daara yi nga xamante ni programme la bu fi président Abdoulaye Wade bàyyi woon président Macky Sall ñëw li mu ci def bëriwul su ma sañoon monsieur le ministre ma lay yóbbante ci président de la république nga wax ko programme boobu mu continuer ko ndax bari na jamono yi may waxee nii ci nawet bi daara yoo xamante ni jàngatuñ ngir daara yu seen kon programme boobu programme bu am solo la te département Mbacké ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax bu ndox mi nga xamante ni président de la wax na ko ci kanamu Cheikh Mahamadul Muntaxa ne priorité am la te dina ko def farata ba fexe ba Touba Lac de bi mu ñëw fi loolu jàpp naa ne bu ko réinséré soxlaatul muy dagaan baatu waa te xam ne Touba gagné na ko à vie te dootu ko perte ba àddina tukki may faral di wax ne fii bu ñu fi toogee ñun député Yewwi Askan Wi wala ñun député Pastef yi dañuy sant yàlla xam ne suñu yoon loxo yàlla moo ci nekk loxo yàlla boobu ci nekkoon nag moo ci continuer di nekk ba baa ñuy joxe réew mi fii ak 50 ans duñ perte Sénégal loolu mooy am incha allah rabbi di la wax ne li Sénégal yëpp di xaar ci yow musa le ministre li Sénégal yépp di xaar ci yow di ko wax président de la république Bassirou Diomaye sénégalais yi kontaanuñ sénégalais yi mer nañ sénégalais yi ñaar ak ñett ñoo tok dañ naan yeex gi dossier yi yéex moo leen jaaxal ndax bang-bang gi ak bañ-bañ lu gi du dara lu dul di ngeen yeex ci yenn dossier kon japp na lolu war ngeen ko baral ñi nga xamanteni ñoo rey 84 personnes yi te ay sénégalais yo xamanteni ni Sénégal yoon mo len may ñu genn manifesto légalement ñu tiiri len ñooñu ñu len ray war nañ ko feñal di nuyu nak sa mbokk force spéciale yi tok toog sa sama mbokk force spéciale yi ak rebelle yi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox sen waccu way sen taxaway ci rew mi rafet na motax alternance am tay ji bu honorable député Farba Ngom toogee fii mën a yaru yaru bu toog ni yéen yéen a ko waral wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu merci cher collègue Bassirou Goudiaby vous avez la parole suivi de Ndeye Lucie Cissé Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers les ministres, les, collaborateurs des ministres, chers, euh, collègues, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, man demande conviction à principe. Conviction et principe moo taxoon le président Abdoulaye Wade ba mu accéder au pouvoir indi li mu comme institution pour mon Le président Macky Sall ba au pouvoir également li mu soxla moom la comme institution pour mën a doxal dañ ko koy le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Fay, est sorti de ces élections avec 54 des élections des, voix c'est le Sénégal c'est le président de tous les Sénégalais à partir de cette date là lépp loo xam ne soxla Pour pour ñooñu liggéey boo xam ne jox nañ sur 5 ans pour moi, warul am sénégalais bu ci opposé wu dañ ko c'est loolu lu ma gëm la boo ñun promesse de campagne locale législative depuis tout le temps avons insisté sur la suppression ñaari ñaari pourquoi monsieur le président c'est 15 milliards de francs CFA ci santé nga nekk actuellement il y a pratiquement 4000 patients hémodialysés yooyu xaar pour accéder ci benn à bu ñu mën mënuñu parce que pour nga mën a jot il faut mu am ko pour que nga mën cee Bodile les 15 milliards. Dougal ça te fait 1250 kits démodialisés. En moins de deux ans, tu règles ce problème-là. Si tu as un petit pupitre. Si vous avez as 15 milliards, si vous avez